salaamaaleykum wa rahmatulah waa mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di laaj ci sëqët surtout yi xam nga nag fan yi sëqët yi daa bëri socc sa grippe beeg si biir lu mel noonu rawatina it xëy na euh, li nga wax noonu bu dee asma doo xam asma la bronchite yooyu yëpp ay xel la yoo xam ne day dal day dal ak bi nga xam ne tey nekk foo xam ne wala jamono joo xam ne wala. barab boo xam ne yooyu yëpp day feeñ ci saxat yooyu moo tax li wax noonu mën nga ciy def ba sonnatu doo doo gis lu ko saafara te fekk yi yi sabab saxat si loolu nga dul xam bu doon soj nga xam ne lii ak soj la waaw bu fekkee eh, grib bi lay xam bu fekkee asma la it xam wala xeet yeneen bronchite wala yeneen sax yoo xam ne yëpp day mandarga na ndax sëqët moom li may wax du du tawat bi dëgg-dëgg mandargay tawal la waaye du mom dafa am luy daal nit ki loo xam ne tey feeñee noonu muy sëqët di sëqët loolu nag doo doo xam lan la xëy na da ngay tegtale xam ne mën na saafara ci wàllu sëqët wante xamoon waxoon lan la mooy gën a mooy dëppoo li li koy sax lu dul loolu nag li nga xam ne li wax noonu rek moo ci ne loolu nag da nga koy def mu tëla te fekk li ngay faj yow mandarga yi sabab bi doo ko xam xam naa daal utal leen xob benn xobi tabanaane tabanaane fekk xam nga tabanaane xob yooyu di wadd ci suuf mën nga koy for léegi raxas ko mu set waxal ko ñu di ko naan baax na xob yi guyaab bu fekkee fi nga ne guyaab am na fa xobi guyaab bu baax na trop trop trop ci wàllu sëqët surtout xale yi xobi ngeer yi moom itam surtout baxal ko léegi di ko suukaree lem ñu di ko naan moom itam dañ leen koy defal surtout xale baax na ci ñoom trop trop trop wala xobi xott yi boole ko xobi ngeer yi moom itam wala lëng ngeer ñetti yooyu moom la faj ma ngi daan fajee far nag lëng rat ngeer xobi lëng xobi rat xobi ngeer da boole leen bu ne nga am ci ak togg waxtu wii ñu toll ni nga xam ne loolu day sonale lool mag ñi daanuñ tàggoo yooyu lëng ngeer rat xobi lëng xobi ngeer xobi rat moom moo ci danga sut ñëpp dañ naan togg suñ xëy ñu xel ci kaas jox leen suñ lekk ñu xel ci kaas jox leen bu ngoonee gis nga ñu xëy ci kaas jox leen te moo moo yem loolu moom loolu la ma ngi daan jaboot yi jaboot yi loolu lañ daan yor léegi nag ñun kenn nekkatu ci jaboot ndax ku ne sa bopp ci ngay nekk loolu day tax jafe-jafe yi nga xam ne mooy ñuy dal fu mu ne moo dal ci yu bare bari waaye daf ci am yoo xam ne garabu jaboot loon yoo xam ne bu jotaan waxtu wu ne bu jotaan dafa am ñoom yu ñuy jëfandikoo yoo xam ne ngir moo leen ciy génne waaye lëng ngeer rattal nga boole ko xob yooyu baxal ko su ko defee ñu ngi si xel di naan ñoom xale yi wala sax mag ñi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp sax ci suma lu gën ci wet googu incha allah